ndax koo xamante ne la euh, ku sori ci yow la mm. euh, muy sa muy muy sa sëriñ mm. mais ngeen partagé waat au la de li mu nekk sa sëriñ beaucoup de choses waaw je celui-là c'est mon marabout c'est mon ami c'est mon parent ñoo bokk sànq dama bokk Sénégal yëpp moom ñoo bokk faat sax sax xewar faat ma ñoo bokk gañ siri gañ siri ma jub ma ko bi jë ma ko bi jë birum faat ma faat ma ñoo gay ba faat kon kii sama mbokk la sama xarit du bare moom mii moo tax dal certainement j'étais j'allais être comme euh, un Sonko aujourd'hui parce que j'avais beaucoup de race beaucoup de compétences moom moom indiwaat parce que rusoon naa nekk porte-parole am je suis été son dernier porte-parole nekk porte-parole am ñu may dégg ci leneen parce que bare nopp ci wanaasu ko toog lan la la daan faral di wax. ma naan kañ wan nan war a mel nan la jullit war a mel waaye il est fois la dignité passe avant l'ambition day tiim xam boppam xam fi mu jóge lii moomu ko jàng naam ci suñu deret la waaye moom gën na ma ci kañ wan ma nag la ak fayda nan la way defee parce que kii fu ku fi mës a toog nekk fi pat euh, président laal bi xam nga kan mooy sëñ Mbacké alors soxna bi bi nga bi nga déggee ne dafa làqu qu'est-ce que vous avez senti j'ai senti beaucoup de choses parce que bu nekkoon am na yu bëri du am loolu wér la waaye j'ai été dévasté. naka nga ko yëgee. duñ ma woo d'abord moom moo ma woo ni ma dimanche bi loo mën def na bàyyi ko te nga ñëw juba te nga ñëw tayif dem fekk ko mu jox ma message pour Macky Sall mi. ni ma waxal Macky Sall mi ngi nekk di def tournée boobu Macky mi ngi def tournée ci biir Saalum danañu am lu ñu koy taaw di ko jox bu mu ko jël da nga koy subaaj génn tey woo Macky sëñ am na lu ñu taaw di ko jox jigéen nag moo la koy jox bu ko laal am na ñu toog juróomi nit ñu toog ci benn néeg ci sa kaw la waaye daal lañ dugg mënul boo fekkee laa loolu nga wax ko Macky Sall dëpp mais ci dëpp bi mu ngi def ay ci seetoom yi mu nekk ci biir néegam daf ko muur parce que l'habitude da ko da ko daaw daaw ko muur avec am di jaañ ma ne ko mais am di ma ne ko sëñ ma sëñ bi am di de seetu yi xanaa mun maa xanaa am di jaañ waxu la ni am na ay jinne yi nekk ci suuf fii ma ko ah jinne kay dañu indi xaalis beeg yooyu munu ah wax man de am na lu ma lu mu lu mu leen ciy nàkkal amul benn problème ah, na ko quoi ah, seetu yi nag xanaa jinne doo ko dindi ndax jinne yi ñëw mun ma déet ëpp naa def kii dafa am ñu fi war a ñëw dafa am ñu fi war a ñëw. c'est ce qu'il vous a ñu ñu ñu fekkanteeg yéen. dafa am ñu fi war a ñëw. waaw te ñu ñu giseen seen bopp sax ci biir seetu taala leen loxo yi ma ñaar yëkkati indi leen euh, valise bi ñu indi valise bi mu jox ma ay yéreem. indi bàggam jox ma jox ma euh, kurus ñu taalal ma ñaanal ma ñaanal la li gën a yéeme te am benn affaire bu mooy damay wér na tuuti mu ma war mu ma waroon jox mu ma kii de jox ma benn ñaar ñett ñett bii man ko bii nag mun ma bii dinaa ko jox mais après du léegi taalal ñaan génn moo ne am di jaaj yow comprendre dara parce que sëñ bi dafa mel na mel na luy tàggoo luy tàggoo naa sëñ bi moom nii rek la mel na nangam mu ni demal ca dal ba boo añee pare mën nga dem parce que suba sax ñu ñu ma ah, yàlla def na li gën sëñ bi nelaw <coughs> mala foofu eh, ci ci ci maa ngi kaf ak sama gars yi dama ne ah yàlla jour boobu bu wàccoon sax danaa ko xaaj bu wàccoon ñu xaañ ko. parce que avec quelqu'un qui était une référence quelqu'un tout pour moi li gën a jéeme mooy un après loolu ma ko waxoon ni ko mu mu ne daana ko jox waaw mooy li nga waroon weer mu am kenn ci benn sëriñ yi ku ñëw ni ma tey de dama lay baaxee loo xam ne sa sëriñ bi moom ma ko joxoon ma ne ko lan la mu jox ma affaire bi ma sëriñ Mbacke waxoon naa la ko jox après un an après kooku muy sëriñ alors quel est le souvenir boo xam ne doo ko fàtte jamais ci moom balaa ñu ndarkee du du ma fàtte dara ci moom jamais doo xam ne mukk mukk du ma ko fàtte mm-hmm. nit nañu toog invité ñëpp Landing Savané mu Ousmane Ngom ñëpp ñu toog ministre mm-hmm. yu bëri ñu toog mu ni kenn du fi añ kenn du fi reer te porte-parole ñëw day la ñu wër ma boobu maa ngi dem aéroport tur mu woo ñu moom moo ñu Mbella ñëwal ñu añ añu da suñ mag yi dina ko mais na kenn du reer te ñëwoo ñëwul ma de temps pour dem tey. non c'était à ah, mu ñëw Dakar. mu jóg jóg porte tibb ko ci ay loxoom jox la nga lekk. jox moom ñu doon bokk. ñuy mu tegal leen seen bóol foofu duma ko fàtte ilaayu nit yi d'accord de déedéet des na mu nii uh-huh. nañu yàkkal suma soxna ñu ni ñu ni ko ah ci bi jeex na de mu ni ginaar yi jeex na bu baax suba sa mu yónnee camion camion ginaar la yóbbu yónnee aadama Sénégal waa kii mën naa ko fàtte alors très rapidement quelque chose